jotul seede Cheikh Tidiane Dièye yaa ngi comprendre. maam du set li may xaar mooy premier ministre ak président gëm naa ne heure bu ñu demee ba jàpp ne Cheikh Tidiane Dièye am na ci lu mu taqee. danañ ko démettre moom kii léegi daf ko daf ko laal Cheikh Omar mhm. ndax tamit waruñu xoolaat structure publique yi mhm. relation bi ñu am ak seen ministère de de yi waaw souvent day am problème entre euh, effectivement directeurs yi ak seen ministre effectivement loolu ci yàgg naa am mais ci Macky la gën a explosé ci Macky Sall lañ gis directeur yu bëri mhm. défier publiquement seen ministre de tutelle parce bëri na bëri na bëri na bëri na direct directeur yenn direction yoo xam ni presque ñoom ak seen ministre de tutelle guerre la woon. Mhm. bëgguma ci revenir bëri na ñu ñëpp xamoon. donc li nga ci comprendre mooy direction yi doole bi ñu am. Mhm. mais beneen affaire bi tam dafa am mooy souvent gars yi c'est des hommes politiques te homme politique boo ko dénkee dara acte bu mu ci mënti def it mi ngi xaar gain politique bi Cheikh Dieng fal nañ ko fal nañ Cheikh Tidiane Dieye mënoon nañ nekk liggéeyandoo ñoom ñaar def résultat. su diffiance amee rek nekkul le ministre envers le directeur contraire bi la directeur bi xëy na mooy des fois bëgg génn ci tutelu ministre bu ko woon na ko faloo ma fi ma nekk nekkoo tegoo ma fi loolu nag boo ko bëggee indi ci logique bi nguur gu bees gi nekk dangay ngay indi problème maanaam su boobaa dootul nekk jub jubal jubal. man dama jàpp ni sax dañ ko def comme genre. voilà exemple c'est-à-dire. maam euh, cas d'école la boo xam ne ñëpp danañ ci jànga ñu jàpp kilifa boo xam ni dafa am lu mu def nit ñi ñoo di ñaan njekk mu ne leen sama doom ji ma gën a fonk muy Fatima bu ko defoon ci moom laay njëkk a sévère moom xam nga fi mu toll nii comme ni Cheikh Omar waxee mhm. directeur yëpp dinañ gën a waat seen ceinture gën a lu xam ni à tout moment bu ñu amee manquement mën nañ leen éjecter loolu benn la mais beneen bi nag man li ma man fi ma gën a bëgg nit ñi taxaw ci mhm. du Cheikh Dieng moo tooñ wala Cheikh Tidiane Dieng moo tooñ mhm. mais xam nga mooy lan. mooy lobby yi teewoon yenn secteurs yi ci réew mi ba léegi ñu ngi fi. Ah. xam nga Cheikh Dieng il a été victime des lobbies. tudd na leen. Mhm. lobby yooyu nag ba tey ñu ngi fi jugee guñ fi te du moom rek la ñuy wër pour téeku ñu ngi wër mbooleem directeur ak ministre yoo xam ne secteur ñoom yi ñu doon évoluer yaa fa nekkoon ñu ngi jaar ci lu nekk pour téye leen jaar ci nitu diine. dinañ jaar ci ay dafa laay avantage dinañ jaar ci proposer lu lu dul jeex léegi nag xalaatal nit koo xam ne man ak moom a yemoon mosul téye un million yu mat nga xëy bis wéet ak moom ci bureau génne cent millions teg ci table na ko benn signature laa soxla rek après jeex na mu signé toog lekk cent yi mu neex suba moo lay war na la ndax awma leneen lu ma signé waat mm-hmm. donc ñoom foog ñu moytu lu ne mën nañ leen na ko indil avantage boo xalaat proposition boo xalaat. nit ñi dinañ leen convoité pour téye leen mais ba pare démb démb xam nga ONAS moo tontu. Mhm. mais si seen tontu dañ la wax ñun dans le du projet. Mhm. commandé wuñu oto bu mel noonu wala bu jëm ci loolu. après certains diront que waaw ñuy bind loolu ci ONAS dañoo bëgg a woon ni ministre bi lañ féeteel wala nangam mais c'est-à-dire comme coow jib na ba pare. Mhm. je parle pas de Cheikh Dieye ou de Cheikh Tidiane Dieye mm. pour le président laa premier ministre mm. parce que dès l'instant que loolu mu ngi commencé jóg c'est mm. aussi simple sénégalais ñoom lañu dénk am nañ ay structures yoo xam ni mën na saytu enquête wax ci jeex parce que am na ay faits yoo xam ne bu ñu ko ci tuddee lu jëm ci wàllu corruption wala am na loo xam ne lu jëm ci wàllu jubadi wala lu jëm ci wàllu luubal yat bi dal et puis sans sans état d'âme je vais te donner anecdote mhm. euh, bi ñu jàppee policiers yi nga xam ni ñoo nekkoon fële Zac Mbao mhm. commissaire Adramé Sarr moo leen moo leen moo leen jàpp mhm. ak équipe mooy affaire six cent millions yi mu jot information ma toog fii wax ko am na ko ma toogaloon sax mu xaw am lu mu ci waxee mais man xam naa waa ji bi ma ko contacté mu ne ma ñun mënuñu fi toog di arrêté nit yi def nëng téef am ñu bokk ci ñun di ko def mu ne ma duma ci arrière sans état d'âme hmm. dina am sax ñu bokk ci suñuy kuréel ñu may mere mais duma ko def donc pour man l'exemplarité elle est très simple hmm. parce que hmm. Macky Sall toog na fi ab DG rapport COUD jàpp ni kii waratul sax am benn poste waratul am benn post mais pour des raisons politiques parce que am na base politique wala am na mbooloo ñu jële ko fa def ko sax ministre de tutelle ci direction bi mu yoroon. donc donc pour man euh, woote jub jubal jubbanti. li waaye di wuyoo na koy nduroo c'est aussi simple. ñi la wóolu woon ba dénk la. Mm. gis nañ ni ca lañ la dénk. am na loo xam ne dalu ci seen xel. wala mm. am na noo xam ne gisee ko noonu. ñoom ñoo jëlaat seen responsabilité lañ la dénkoon ñu jël ko. donc pour man. Euh, sortie yii nii de manière intempestive on ne mérite pas ça mérité wuñ ko parce que dans ce man li ma lay wax ni dans ce contexte. ci difficulté yi ñu nekk pendant des années. ñu am ay jafe-jafe assainissement. dans ce contexte bii ñu nekk mu taw démb ak barki démb nit ñi nekk ci jafe et ce que les gens ne savent pas chaque jour ñu wax ko fu ma toog wax ko. moom mii bi mu ko nekkee taf premier jour dama dama génn j'ai fait pour pour pour pour, pour faire un plaidoyer na euh, nu mu tudd Lassana Gagny Sakho mhm. aujourd'hui il est Pastef vous rappelez problème bi amee mu génn naan sénégalais li ñuy jur dafa bëri ay xawma la nag <laughs> non attendez madame c'est pas aujourd'hui que laa ko wax vous allez à Pikine <laughs> école 7 Elimane Ndiaye mhm. l'école accueille plus de mille cinq cents élèves 1500. oui dernier égout onange bi nga xamante ni mooy jël ndoxu daagu daan yëpp ñëw ci centre bi jël ndox mi yóbbu ko château d'eau li may wax ñi dëkk Pikine ñoo ko mën a xam. d'accord après hôpital Dominique gis nga foofu léegi ndoxu fosse bi il suffit courant coupé wala bu tawee ba pare ndox yi déversé wu dernier égout bi ci biir école bi la nekk. tu te rends léegi vous savez que école boobu nii nii ci nawet bi ndox mi day dem ba 2 mètres te ndox mi xamoo ndoxu lan la ndoxu taw kese ndoxu foos yëpp da ciy nekk léegi ndox mi su taawee noonu classé yëpp noonu lay buuje balaa école di ubbi mu nekk cratère après les gens ñooy ñëw ak ASC yi nekk foofu. mairie yi ñëw ñu tibb. Mhm. dindi dem woo xale yi xale buy jàngee école publique bu sa këram bant waddee nga for ko màcc. ñun ci difficulté yooyu lañ nekk après les gens se permettent tu me parles d'une voiture de quatre-vingts millions ça veut dire quoi. Mhm. d'accord euh, ñu xaar euh, onage. ginnaaw point de presse bi muy def sànq dafa mel dafa am lu ci bëggoon dolli. waaw ah, li ma ci bëggoon dolli mooy man daal feey ak ni mu demee dafa dalal suma xel ci dara mooy. Mhm. Euh, ñi ñu teg ci boppu réew mi falu nit ñi rek dem toog bàyyi leen ñu déroulé def leen neex. Mhm. ñu ngi leen di mhm. bàyyi xel ñu ngi leen di surveiller. te du ñu hésiter jël ay sanctions envers ñoom man fee laa ciy tiire. mooy d'autre part lobby yi fi nekkoon bawuñ. dinañ def le tout pour revenir mais keroog lobby yi dañu ci junj rek bàyyi. Mhm. waxoon nga ñu ba nañu am na ci ñoo xamante ne dañ leen sukkal. effectivement ñoo nekk ci biir. assainissement dafa bëri trop li fi jëlee Cheikh Dieng. non bugguma docteur Cheikh <laughs> Dieng. c'est que mu tegee keneen te lobby yi jóge wuñ fi fi. jëlee ah léegi rek léegi nag foofu. ñi ñuy teg ñooy am courage wala endurance wu fexe dëddu li leen di proposé. Mhm. l'ONAS dafa bëri ay kilifa. wala assainissement de manière générale dafa bari ay kilifa yu ci yëngu ci dëkk bi. Mhm. Sénégal yu bëri xam nañ leen xam nañ ñan la. Mhm. Mhm. voilà donc donc prudence leen leen daal xam naa ko ci. moom daal Cheikh Dieng est-ce que xam nga ne bi ñu ko bi ñu ko démettre de ses fonctions. je ne vois aucune structure bu nekk ci état bi ñu communiquer ci li nga xamante ne moom mooy affaire oto yooyu est xam nga loolu. est xam nga ne y a que Cheikh qui parle en fait. moom Cheikh la question qui doit se mooy. comment l'information a fuité. cher daal ay journalistes ak yenn information mu c'est ça en fait. Mhm. soit ay journalistes wala ñenn chroniqueurs yu ci am yenn détails yi wala xoolal soit des suppositions. Mhm. wala ñi nga xamante ne ñoo doon liggéey ak moom na ko xool ci jege ñaale may ak ñiy liggéey ak ñoom parce que <laughs> souvent yenn information yi bu génnee la question que tu dois poser comment la information bu mel noonu oto bi coow li c'est pas Cheikh Tidiane Dièye qui en a parlé ce Mhm. donc en fait c'est pour ça que man rafetluwuma en fait démarche bi mu am nii tey. tu sais bi ma ko déggee ci passation de service bi. je mhm. savais très bien. que bu génnee di def point de presse parce que ci la annoncé ne il va faire une sortie mais ni mu tàggee Ousmane Sonko tàggee ko président Diomaye je suis que du ñoom lay attaqué directement. Mhm. je savais directement kii bu amee ku muy attaqué. cest euh, son ministre de tutelle. c'est en politique aussi. oui. comme li wax noonu. pour man lii euh, problème politique la j'ai l'impression que c'est ça en fait mais aussi euh, am na loo xam ne. su amee c'est à suicide politique aussi. defar nañu ma waaye weddiwul mais mënu ko weddi parce que parce que de toute façon document yi ko kii mu ngi fii loolu mënu ko weddi. après bon comme disait Pape Moussa y a ce n'est pas le seul directeur mais sauf que c'est le seul c'est le mhm. premier directeur à être élu sous le sous le règne de de de de Bassirou Diomaye Diakhar Faye mhm. c'est ça la différence mhm. yeneen directeur yi fi nekkoon c'était sous un autre régime ñii bu ñu faloo moom la ñu fi fal mu nekk directeur général bu yees bu ONAS kon xëy na peut-être dans la pratique Euh, ñoom dama jàpp ni wax dëgg yàlla daal kii bi jël bind. le président nomme aux la. <laughs> yaa ngi dégg ci conseil des ministres àllarba <laughs> moo la wàccee àllarba tamit vraiment pour man jarul woon tout ce déballage la finalement nga xamante ne voilà les gens ne s'occupent même plus de l'essentiel mm-hmm. et Cheikh Oumar a raison de dire que ñu ngi toog fii di wax sa fait

également <coughs> euh, pour les radios télé et web TV sénéral génne na benn circulaire ne leen may na leen weeru yàlla pour ñu ñëw enregistré wu ba pare am seen autorisation euh, bi nga xamante ne mooy war a mën a tax ci mooy jóge ci euh, ministère bi mu nekk loo xamante ne daanaka ñëpp war nañ ko war nañ ñoo dëppoog loolu ginnaaw bi ñu fësalee liste bi nga xamante ne ñoo jot et à la presse mu juri kaw Cheikh Ousmane sa jàngat lan la ci loolu